sëriñ bee kaniram Moustapha Bachir asalaamaaleykum yéen ñi safoo Dieng Saala TV tey nag ñoo ngi fi ci njaareem fi seeni siq ak waxtaan sëriñ Abdoulaye Dieng ak sëriñ Moustapha Sarr ci jaar jaar sëriñ Balla Fall Dieng fii ci njaareem kon du def dara rek loo digtale waxtaan woowu noonu incha allahu rabbi suñu Balla Fally dëkkal ko fi léegi nak dañu bëggoon xawab ci lan moko waral nga leeral yooyu mi nga xam ne nga ci kër gi li xam nga ci lu bare bare te sa mamit mo moo kër gi boo ci di sëtu suñu Balla Fally ñoon sappu ay leeral rek ak lay di taalibe yi nga xam ne ñu te bismillah ñu di siyaare di siyaare bokki taalibe di siyaare jëriñ ji fi fekk muy Abdoulaye Goat sering bi tegal ci ndigalam moy mooy sëñ mu jëg bàll fale na bu ma ko gërëmee bu nopi nuyu sëñ la min and ci jotta bi ak sëñ ma dikki ak sëñ mu bi nga xam na mooy wàllu waxukaay bi di leen siyaare di siyaare bokk tan bi yëpp waaw kër gi de da nga ni nga ko waxee sax non la démé rek kër gi moy kër gi nga xam ne fi la sëñ fa fale jig nawal la ne kon fekk ku baax ki te ku baax ki sancaloon ko fii ñun ko baaxoo xamee rek ni ko kër gu mag mën nga ñàkk mag moo tax mu daggal ko fii mu féete fii di di fi toog waxtu ko sëriñ bi soxla woolu ko boo def loolu am koy def loo bu ñëwee toogaat fii ku wax nag ni tamit sëriñ bi fii ñëw na fi ay yoon ñun rawatina waxtu guddi ndax sëriñ bi ñaari kër yi dëkkandoo moom ñaari guddi gi la fi daan dem mais wax na ni sax am na jëf ju rëy joo xam ni suñu baba mosoon ko mooy sëriñ bi mosoon na ko fekk ko ci néeg daan ni kii kan la mu ne ko mën na ball waaw mel na ni sax dafa jàpp sëriñ Balla aal lool sax boo wax na ni bi mu xëyee sëriñ Balla daa buub mboolem li ne ci kër gi ba ci néeg boobee sax yët ko sëriñ bi dese pàpp kese barab la yeme yéeme daal boo xam ne bokk na ci barab yi gën a tedd ci kaw suuf ñu rawatina nag jëm suñ bàmba faral bu doon am am na na drapeau daal day mel ni fii drapeau ndax daara jëng ak tuubaat lépp fii fii la fii leen juddoo ndax ci barab bi leen sos ndax fii la nek nekk ku baax di ko woo muy jëli ndigal di ko andi fi di ko jotliwaat mag ñi di ko yóbbu ji ak yeneen ñeneen ñu ngi ko loolu daal tënk ah, mel ni soo ko dee gisit bokk na ci kër yi gën a jege jumaa ji gën a jege kësëñ kësëñ bi mel ni loolu yi taxis la. ak hmm. fàggu la daal. waaw boo génnee jumaa ji ci buntu buntu kër bi moom jumaa ji ñooy jàkkaarloo. Hmm. kësëñ Tuubaa gi di ko ci génne kasaari ki noonu noonu la hmm. loolu day mel ni kon fonk bu sëñ bi fonkoon si bala bari ak loolu yi mu ne woon kër mënta ñàkk mag. loolu da ciy feeñ bu baax a baax ndax mboolem kër yu wër jumaa ji yëpp mm-hmm. sëñ bee leen joxoon ndigal ñu sanc ko mm-hmm. ñu sanc bu wër jumaa ji ñëpp mag ci magi sëñ bi lañu mm-hmm. waaye sëñ Balla nag da ci am xaasi boppam xam ne mën naa ne ñu ko ci am ndax kër gi jege guñ jege lool ba ñu bari sax dañ koy tuddee kër sëñ loolu yëpp mel na ni tawfeex maanaam fii sax am na jamono jege gi mu jege jumaa ji ak booba bi nga xam ne suñu bu jëm fa ba suñ bàll fa suñu yëpp jëng bàll fa defaroon na ko hmm. ndax euh, bi fi suñ bàllee nekk moom ay sàkket la fi bàyyi woon Baye Abdoulaye Ndiaye nga xam ne moo newoon ci kër gi te nekkandoo fee na wax ni lu mel ne nawet bu sàkket yi masa daanu séréer yu góodaay yi bu ñu dem marché bi alxames bi ñoo fi ñoom bu ñu dëppee ñoo koy yëkkatale sàkket yi sampale ko xel yi ndax euh, bi nga xamee ni maanaam ñi ngi tàmbali jumaa ji bi suñu Moussa xasee fondement jumaa ji mag ñi dañoo waxoon ni na suñ Fallu ak suñ Moussa dañoo waxoon ni yow benn talibi yëkkati dara li nuru ko tabax ba taxoon jéemu ci woon dara bu masaa bu suñu bijjee masaa gis mag ñi fiy jógee ci dem foofa ca moom danaa ne dama amagul ndigal waaye am naa yéene defar ko yi nga xamee ne maanaam juma ji àgg na nag la sëñ Fallu yónni fii sax la ko fekk ci kër gi la ko fekk yónni fi suñu bu mbaa la fa amisaal mi fi newoon di soxna si Baye ablaye Ndiaye ñu ne bëcc gi sëñ Fallu yónni fi la ko fekk wax ne boo demee ne suñu bi jëm Balla Fall yi kër sëñ yi amoon na yéene ko ñoom ñoom ñëpp am nañ ci ndigal ci defar leen ginnaaw gi jumaa ji àgg na at moomee ci la suñu bi jëm fii mu àggee ma tëj ci këru Dëru Jënge bu mu àggee ma tëj ci këru Touba waaye ñetti kër yëpp dañoo rangaloo nga xam ne ñetti kër yëpp bu mu defar ba mu àgg rek day dem jëkk ja des waaye lu jiitu jumaa ji di àgg moom ay sàkket dong nga fi ne woon ndax boo masaa wax suñu bi jëm Balla Fall mu ne suñ xoolu daa joxe ndigal bu fi benn tabax yëkkati te ñun ndigal rek mo taxon nak jege gi mu ñu may ji ak dëkkal gi fi suñ Tuubaa lu suñ Balla Fall taxon nañu bari japp ni kër gi mbakkal la sant néeg yi ñu nekk ni muy bâtiment bi suñu yëpp la fi la daan nekk fi la njabootu suñ Tuubaa gi ñëpp daan dal sëñ Basiiru mi nga xam ni ñu ngi ñaanal suñ Muntaxaa mu yàgg fi te wér ndax moom la mu waroon a jiital ci nuyoo bi sax waaye waxtaan dong la rek suñ Basiiru mi nga xam ne maanaam moo fi nekk du doomam moo fi nekk tey gan gu gan gu mas a am te fii la lay dalal néeg bi ñu jàkkaarloo nii suñ Moussa Yine Daara daan na fi nii suñ Mourtala Xaadim Rasul daan na fi nii si yëpp lan daan suñ Tuubaa gi ñëpp ci bâtiment bii fi lan daan daan boobu nag defaraguñ ko waaye boobu téewutoon bâtiment la woon boo xam ne dëppoo naag jamono ji mu tombé lool jamono si yëpp du garib nag lan ko lañ ko lan ko defari nii suñ Mourtala mi fi nekk moo doonoon jëwriñ ci jamono jooja ci biñ koy liggéey waaw waaye kër la goo xam ni nii mu tëddee nii rek noonu la meloon jamono suñ tubaab ba léegi kër gi ju topp muy kër suñ mu jigéen mu siiw mi ngay dégg ci histoire am diggam ak suñ bàll kër gi ko féete sa ginnaaw nii mooy kër soxna Fatja ci tawam suñ tubaab kër gi ju topp mooy kër suñ aafi kër yi moom bi fi suñ bi di nekk tamit nii la nii nii lañ leen dëkkaloon kër suñ Mbàkke Juuf bëkk nit mooy kër gi topp ci kër suñ mu jigéen waye nak keur yi ci dess yu bari bari bi serign bi jógee saagu dekk bi tass tax na lu ci bari suñ Basiiroo ko sancaat waye bu ñeenti keur yi ma la wax nii moom jamono serign Tuubaa ba léegi nii la mel dara sansu wu xana lu lu tabax yi mu def. waaw loolu nga wax ci wàllu njaboot suñ Tuubaa nga xam ñoo ñu fi xam lu fi daan denc ndax mas namaa dégg ñu ne hmm. banti xalima yooyu nga xam ne moom la daa bindee hmm. euh, euh, xasidaam yu tedd yi nga xam ne moom lay tagg yonent bi sallallahu alayhi wa hmm. fii la ko daa denc denc loolu mas naa woo dégg ci ci ku wóor mu wax ko mel ni lu mu fonk ay gani gani naar wala gani yi bàyyi koo fenn di ko sees fii la leen daa dalal ñu ci baree baree bari loolu it comme mooy li nga wax léegi loolu wéy ba léegi kër gi ba léegi mi ngi ci moomeelu suñ bàll bali képp koo xam ne moo fi toogal rek mooy kilifte bi waaw kon ñu ngi sant bu baax a baax a baax ci taxawaay bi moom. waxtaan bi moom gàtt na waaye nag jamono moo xaw a xat. loolu lu kàddu yi néew a néew rek. bisimilah loolu rek la. te baatam dana jolleem ba téeméer la ñaare.